asalaamaaleykum mbokku auditeur Rewmi FM dal leen ak jàmm seen émission sans filtre di jotaay ndaw ñi fii ci réew Rewmi FM mercredi bu jot lay door lay am bu 15 heures jotee jàpp 16 heures tey Cheikh Ndoye lañ fi dara di jeune enseignant euh, laata ma koy jox kàddu gi Modou Fall ma bàyyi lante nga nuyoonte mbokku auditeur Rewmi FM. maa ngi lay nuyu Sylvie di la jaajëfal di nuyu suñu invité bi tey Cheikh Ndoye di nuyu technicien bi ak Mor Fall mi nekk ci direct bi. di nuyu suñu ay auditeurs ak auditrices yi nga xamante ne si ñu ngi topp sans filtre mercredi bu jot bu 15h jotee jàpp 15h euh, tey nag ñu amaat gan waaye képp koo xam ne bëgg nga ànd ak ñun rek ci émission bi mën nga ñu daal di dab ci 88 628 84 84 plus 1 88 628 85 85 plus 1. wala 88 628 86 86 plus 1 yow mi nekk fële ca bitim réew bëgg ñoo topp ci émission bi mën nga woote ci 33 841 21 40 boo ko defee daa ñëw ci émission bi Sylvie kon dañ lay daal di delloo kaddu gi rek euh, ba ci kanam tuuti ñu gën a dalal suñu invité bi incha allah. merci Modou Fall Cheikh Ndoye lañ fi dalal euh, jeune enseignant la euh, ñu fas yéene waxtaanee jafe-jafe yi nga xam ne ñoom enseignant yi ñu ngi koy jànkuwanteel jamono ji nga xam ne. année scolaire bi perturbé na depuis daaw atum 2020 ndax mbasum coronavirus mu mel nii rek enseignement bi Euh, metti na loolu jamono ji ci élèves yeeg étudiants yi waaye itam ñoom itam ñoom ñuy professeurs yi mbir mi metti na euh, Cheikh Ndoye euh, ma nuyu la am mbégte contenté dalal la fii émission sans filtre ma bàyyi la nga ñëw ci mbokku auditeurs yi. jërëjëf Sylvie ñu ngi lay nuyu di nuyu Modou Fall di nuyu itam képp koo xamante ni rek yaa ngi topp réew mi FM ñu di leen nuyu bu baax a baax a baax di leen jaajëfal aussi ci dalal di nga xamante ni dalal ngeen ñu ko tey fii ci réew mi FM. Mhm. merci Cheikh Ndoye waaye laata ñuy dugg ci euh, suñu sujet euh, dañu bëggoon Cheikh Ndoye ay leeral parce que euh, ci biir semaine bi ñu génn am na benn affaire boo xam ne affaire Katim Touré di ab moustachidine bi nga xam ne fekk nañ enterré ko ci këru euh, Serigne Moustachidine yi fële ca Tiwaawoon ñu bëggoon nga indi ñu ay leeral. voilà Sylvie ñu lay jaajëfal bu baax ci question bi nga xamante ni indi nga ko mu mel ni comme ni nga ko waxee rek euh, semaine bi nga xamante ni génn nañ ko euh, mbir mu doy waar la ñi nga xamante ni moom la sénégalais yi daal di yeewoo. parce mm-hmm. que xëy nañu rek dégg ci ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllum tasum xibaar. Mm-hmm. ñu génnee xibaar boo xamante ni képp ku ko dégg rek. yow jamono ji nga ko déggee dina la métti parce que bu dul dara rek ab euh, koo xamante ni wàññeeku na ñu jékki-jékki rek euh, génneewaat kooram mu mel ni loolu bu doon loo xamante ne nii bu doon euh, koo xamante ni keneen la sax ñëpp xam koo xamante ne nii kenn xamu ko sax mm-hmm. ñu denc ko ci benn bërëb ay nit dem génnee ko loolu rek lu ñaaw la rawatina nag mu nekk koo xamante ni muy Baye Katim ture comme ni nga ko waxee mu nekk koo xamante ni ku daan ànd ak Cheikh Al Khalifa Aboubacar Sy la woon. Mhm. Euh, Serigne Babacar bi mu demee ba wuy ji boromam. muy woy di ànd ak ki nga xamante ni mooy maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al bi maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum itam làquwee muy ànd ak ki nga xamante ni mooy as Cheikh as Seydi Mouhamadul Moustapha Sy ba ni mu génnee àdduna. bi mu génnee àdduna nag mu nekkoon loo xamante ni lu siw la. ñëpp mhm. xamoon ko parce que ci veyu korite la woon. ci veyu korite korite bi ñu génn mhm. ñu denc ko ci jouru korite biñ koy denc nag ñëpp a ko xamoon parce que ñëpp a ko gisoon parce que gis nañ ko ba ci sax euh, bi muy jógee corps bi bi muy jógee dakaar di dem gis nañu euh, ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllu média gis nañ leen bu baax a baax a baax ñu topp ci corps bi ñu quitté Dakar jëm Tiwaawan gis nañu itam bañ koy jullee sax moment boobu ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllum tasum xibaar bëri na ci ñoo xamante ni moment boobu diffusé nañ ko bi loolu jàpp jàllee itam gis nañu ñi defaral ko xadara bu ama am doole boo xamante ni mën naa ni Euh, bëri na ay moustachides yoo xamante ne teeye woon nañ ko fële nga xamante ni mooy ci diwaanu parcelle. Hmm. waaye nag bi ñu toogee euh, un mois daanaka après ñu jékki-jékki rek daal di dégg ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllum tasum xibaar ñu xëy daal di ni euh, kër sëñ Moustapha am na néew boo xamante ni. suul nañ ko fa te kenn xamu ko maanaam fekk nañ ko fa daal. te ab problème terrain moo tax. Euh, euh, néew boo génn loolu la ñu wax. ci biir am après après la ñu wax ni que ni problème mu terrain la mais avant problème mu terrain am na lu ko jiitu parce que ñoom euh, au au début. lan moo ko jiitu au début dañu au début jour alxamis. dañu mm-hmm. génnee néew bi jour alxamis yemook ku ne xam na ni alxamis. si guddi ku ne xam na ni ñi nga xamante ni ñoo nekk ci daayratul mustasidin wal mustasidat bu doon taw ay xeer sax alxamis si guddi ñoom dinañ daje def li nga xamante ni mooy seen bésu guddi ajuma kenn xamul ana lan moo tax ñi nga xamante ni ñoo def lu ni mel ñu taamu ci jour alxamis boobu nga xamante ni mustasid yi dañuy def seen guddi ajuma loolu moom kenn xamul mais daal li am ba des mooy bësu alxamis daal ci guddi ci la mbir yooyu daal di xew bi ñu xëyee automatiquement média yi ñoom itam suñu mbokk yi ñu xëy rek daal di ne am na kuñ fa fekk léegi nag yow mi nga xamante ni nag tey da ngay woy di bind euh, ñun li ñuy wax mooy que ni tey li ngay bind war nga ko seetlu seetluwaat ko door ko bind ñun mm-hmm. dañuy traité information tey lu mel noonu bi ñu ko yëgee man en personne ak sama rédaction automatiquement mënoon nañ ci bind mais dañu ni nañu taxaw ba gëstu ci ba noppi effectivement biñ ci gëstuwee jotuñu cee avancé mm-hmm. lan moo tax avancé wuñ ci parce que buñ ci bindoon rek dañuy dugg ci guuta mooy lan dañuy bind loo xamante ne xamuñu ci tous mm-hmm. léegi nag ñi nga xamante ne ñoo nekk ay taskatu xibaar bindoon ci ñoom ñëpp lan lañ mujj def kon jàpp nga ni la ñu bindoon amul lu ñu bind ñoom ñoo weddi seen bopp ñoom sax ñoom kenn weddiwu leen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci daayiratu musaasi dama musaasi ba jamono ji dégguñu sax ñoom ñi àddu di ci wax léegi ñoom ñi nga xamante ne ñoo bindoon balaa journée bi di jeex ñoo commencé waat di weddi seen bopp léegi nag ci biir loolu lépp am na koo xamante ni gis nañ ko ci ay vidéo muy koo xamante ni euh, mooy euh, Seydi Ahmed Sy nekk doom ci Serigne Abdou Aziz Sy baax moom euh, gis nañu ko mu taxaw daal ni néew bii du fi yàgg dafi dañ kon la mu waxoon am na parce que waxoon na ni dafiy dañ ñu gis ko ñëpp gis ko ci ay image mu ñaawlu ko ba pare wax ni suuf soosu maga ma ko moom léegi nag laa tey coow li di sori lépp leer na parce que euh, ki nga xamante ni mooy as cheikh as seydi mouhamadul moustapha yàlla na yàlla euh, guddal fanam te bàyyi ko ci suñu bàyyi lu ñu ko moom mi nga xamante ni nag génn na daal di indi euh, maanaam moom ba tey kenn dégg ko ci parce que amul jot amul seen amul euh, seen jot di tontu ci yi nga xamante ni moo di ay détails mais moom jot na wane ay preuve yoo xamante ni day wane ni foofu titre foncé la moom moo ko moom te loolu leer na leer na nañ ci bopp ñëpp kon est du loolu moo tax coow li egg si fii loolu leer na ci leer na lan comme lan si euh, li nga wax sànq génn ci vidéo ne néew bi du fi yàgg Euh, am na ku ko def am na ku ko def mais taxul coow bi yegg si fii parce que euh, yooyu noonu xam nga lan la demee mooy que ni am na euh, nit ñoo xamante ni seen yéene ak seen yitte mooy à chaque fois fexe ba di cokkaas ak di provoquer ñi nga xamante ni ñooy ay moustarchid lëkkaloo ak ñi nga xamante ni ñooy taskatu xibaar yi ndax gis nañu bi nga xamante ni jamono ji nga xamante ne mbas mi dugg si na gis nañu ñu jékki-jékki rek daal leen ñi nga xamante ne ñooy Moustarchidine euh, yi seen kilifa ñu am luñ ci teg man sax duma ma si jaaraat parce que loolu dara du si woon dëgg avant loolu gis nañu ñu ni ki nga xamante ni mooy doomu Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha jàpp na nit ñu ngi koy topp ñu ngi def lii média yi di bind ñu xëy xëy benn jour kenn déggatul lu ni mel ñu ni ñu ngi koy wër te koo doon wër gàmmu jot nga gis ko koor jot nga gis ko kooku yaakaar naa nëbbatuwu la léegi ñoom it ñu suul loolu ba les échos gis ngeen seen siège bi jamono yooyu ci la ko gaay ci la amoon ñu ko saccagé woon mais yu mel noonu mooy faral di indi lu ni mel mais cas yi nag bi mu ñëwee nit daal di wax ni ah fi ñuy suul kii sama suuf la léegi mbir mi leer na comme quoi que suuf si Euh, sëñ Moustapha moo ko moom parce que titre foncier la loolu moom lu leer la léegi nag euh, leneen li des mooy que ni am na ay mbokk yoo xamante ni dañ doon garder ci bërëb boobu mm-hmm. ñoom ba jamono ji may waxee ak yow nii am na ci ñoo xamante ni ñu ngi leen téye woon ci loxo yoon ba pare itam euh, koor bi nga xamante ni génne woon nañ ko fa ba jamono ji may wax ni euh, euh, maanaam joxaat joxaataguñu leen ko te yooyu nag di ay mbir yoo xamante ni mbir yu ñaaw la mais mu nekkoon loo xamante ni tey nit ki bu fekkente ni am na fu mu jaar ak ñi nga xamante ni sës nañu ci yow ku ci mel ni sëñ Babacar sëñ Cheikh mhm. amaana lu mel noonu munoon na munoon na ñàkk léegi nag gis nañu gàmm gi bu mu jàllee bi nga xamante ni ki nga xamante ni mooy Serigne Moustapha nga xamante ni moom lépp lu muy wax rek lépp lu muy wax loo xamante ni lu leer naññ la loo xamante ni suñu doxee jamono wane nit ñi teg ci seen bët mu leer naññ ba mu génnee gàmm ak discours bi nga xamante ni def na ko ñu gis après ñëpp commencé di takk rajo ku ne lu la neex nga daal di wax waaye nag lii bi mu xewee ñu gis ci ay koo xamante ni dafa ni kilifa diine la te sax moom avant jamono jooju ñëwoon na ci programme boo xamante ni nii Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha def na ko yëkkati fa ay kàddu wax ay wax yu rafet ñu gisaat ko ci ab vidéo mu wax wax yu ñaaw yooyu ba naan lii dafay jóg ba ci insister kooku kan la mooy Seydi si Sy baax ba ci insister ni lii daf fi war a jóg mu mel ni nag kooku noonu moom li nga xamante ni gis nañ ko ci vidéo yi du mbir moo xamante ni mbir mu rafet la mhm. beneen bis sopp tamit dañuy ñaawlu comme ni ma ko waxee sànq taxawaayu ñi nga xamante ni ñooy taskatu xibaar yi moom lan la sëñ Moustapha Sy la euh, moom euh, daanaka rek mën naa ni mën est-ce que du doon raq euh, daanaka ay mbokk lañ daal parce que doomu sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh la kon ci famille si bi la ñooy bokk ñooy bokk famille mhm. euh, mënuma wax exactement lii la si moom mais daal ñooy bokk benn famille mais taskatu xibaar yi tey soo ñëwee euh, nga ne yow fekk nañu ku ñu suul te xamuñu ko alors que ka ñu suul loolu amul nit ñëpp xam nañ ko kon lool day tax ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllu média à chaque fois avant que ñuy annoncé dara rek ñu gëstu mu nekk lu leer waaw doguma la Cheikh yow d'après li nga wax day mel ni eh, journalistes yi dañu faussé seen angle de traitement ci af ci mbir mi ci mbir moomu dañu faussé seen angle de traitement dañ ko mm-hmm. faussé bu baax a baax moo tax mm-hmm. la preuve en est avant journée bi di jeex ñoom ñëpp a weddi seen bopp parce que rajo doguma la parce que boo ne kër moustache yi dindi fële ca Tivaouane suli nañ fëpp néew day mel ni koo xam ne da voilà dafa dañ ko xamul lu ko rey yoo xam ne leerul ñu pratiquement ci benn côté sax ci benn côté sax man dama naan est-ce que lañ ko war a suul ci man man sax ci benn côté dama naan est du ñàkk déggu tubaab mooy waral lu ni mel wala bokk tayeef ñaar yooyu mën a am kër gi ñu ko suul ay sëg la wala kër gu ko suul daanaka kenn dëkkagu fa terrain la boo xamante ni euh, bon du cimetière mais terrain la boo xamante ni titre foncier la Serigne Moustapha moo ko moom est-ce que moo sàkk woon pour ñu denc ko foofu moo moo sësaloo ak fi nga xamante ni moo di mooy mooy këram mais nag góor gi am na foo xamante ni fa la jaar moom euh, bi mu nekkee woon ak sëñ Babacar sëñ Babacar dem mu ni du quitté day des ak sëñ Cheikh sëñ Cheikh dem mu ni du quitté day ànd ak sëñ Moustapha mu ànd ak sëñ safaa ba ni mu ba ni nga xamante ni noonu la demee ku ku ku déglu sax Cheikh Seydou Mouhamadou safaa ci génn bi mu mujjee def ci laylatul xadri bii passé muy ci période koor gi tudd na fa turu góor googu ay fan yu new lañ ci teg sax yàggul ci la góor gi wuyu ji boroomam. moom moo njëkk a tëdd fi ñu ko suuloon wala am na keneen. fi ñu ko suul moom rek moo fa nekkoon moom rek moo fa nekk. léegi nag fii nag Sénégal moom euh, xanaa nag euh, léeg mbir day xew rek. ku ne àdduni noo lii jaaduwul war na ut autorisation mhm. leneen ak leneen ñun nag gëstuwuñu ndax ut nañu autorisation wak utuñoog yooyu waxuñu ci xam nga lan la ñu wax gis nañu fii ay nit yoo xamante ni faatu nañu ñu denc leen ci seen i biir kër te kenn déggul ku ci wax gis nañu fii nit ku faatu ñu yóbbu ko ci këram denc ñii ñu denc leen ba fi ngeen gis ñi koy def ay jumaa yu si ëpp xam nga am na bërëb yu ngeen gis surtout ci Tivaouane am na bërëb yu ngeen gis ñu def ay jumaa mhm. yu ëpp dans yu ci ëpp ci ñoom en général Euh, amul woon juma mais dafa am kuñ fa denc jamono di dox ba ñu def fa li nga xamante ni mooy juma te yooyu bëri na lu muy faral di am. Mhm. buñ ci doon citer ay exemple du jeex mais lii nag bu ñëwee rek ñu indi ko dugalaale ci yeneen day nekk ay mbir yoo xamante ni yu day waar la mais ñun li ñuy li ñuy wax foofu mooy que ni te booleen bàyyee xel ci mbir moomu ba tey nit koo xamante ni faatu na ñëpp xam ci anam yi mu faatuwee ñu sàkku pour ñu def autopsie autopsie pour lan. Mhm. xam nga loolu tamit yeneen biir la yoo xamante ni. yan yan anam la faatu. kooku dafa faatu ci anam goo xam maanaam buur bi subhaanahu wa taala moo jël bakkanam ñëpp xam nañu loolu moor naturel la. loolu amul lenn kenn koo xamante ni loolu lënt na ci sa bopp. Hmm. lu leer naññ la hmm. ñëpp a ko xam. léegi nag bi nga xamante ni nag loolu am na euh, média yaa ngi fi am na yenn scènes yu bëree bëree bëri diffusé woon nañ ko ba bi ñu koy denc jeeg bañ koy jullee sax média yi diffusé nañ ko. loolu moom leeroon na am na sax ci tele yu mu jàlloon moment boobu. d'accord mu mel ni leer na moo Modou Fall boo amee. Euh, loo ci sànni wala ab jàngat. bi ci njëkk mooy euh, Baye Katim Touré taalibe Tiwaawoon la woon yàlla dogaloon mu jokkoon ci Cheikh Ahmed Tidiane euh, càll la googu di law ba mujjee ci Serigne Moustapha Sy mu faatu ginnaaw bu ko wopp tëralee. mu tëddoon fii ci ndakaaru faatu woon bi korité bi jubsee ñu denc ko ci korité bi euh, li ci njëkk rekk mooy fépp bépp suuf bépp suuf bërëbu jaamukaay yàlla la fépp fu ñu mën a jaamoo yàlla mënees na faa denc ab jullit loolu moom mooy li jiitu ci débat bi ci yan condition nag lañ koy dencee moo mat a yegg mat a yeggale mat a yegg mate yeggale muy réew mi dafa am ay sart bu nit faatoo ah nga war a fexe am ay kayit yi wane ni dafa faatu ci hôpital bi mhm. jaar na ci morgue bi jébbal nañ ko ay mbokkam boo jekkee ba di ko denc kayit yooyu nga tuddee autorisation moo lay permettre nga mën ko denc ci sa teewu bakkan ñi ko respecté nag bariwut léegi sa sa mbokk day faatu rekk nga jot ci koor ba la ngay njëkk wax mooy jox leen ma sama néew ñu jox la nga dem suuli ñëw commencé dëjël di xawaare euh, góor gi faatu ay armeel nekk tiwaawoon ñu denc ko ci kër sëriñ bi jàpp naa ni kenn amul fitu denc ko ci kër sëriñ bi te amoo ndigalal sëriñ bi. Mm, naa ko. ci li mm-hmm. naa ni kenn amul fitu denc ko ci kër sëriñ bi te du sëriñ bi la neex. waaye jàpp naa ni foofee ñu ko denc ñaar mën nañ ko faa denc waaye mënoon nañ ko faa bañ a denc mënoon nañ ko yóbbu ca sëg ya denc ko waaye foofu it mën nañ ko faa denc ci kaw buñ ci amee ndigalal sëriñ bi mhm. am ci ndigalal état muy autorisation léegi ñu denc ko defub diir journaliste yi fekke woon jullee ga ndax jullee gi ñu ko doon jullee fii ci parcelle ñu baree baree bari gis nañ ko ci lañ ko jullee parcelle xadra euh, xadra xadra bi voilà ñu bari gis nañ ko ci site internet yi gis nañ ko ci télé yi bu ñu demee lu matut weer ñu bindaat ni kër sëñ Moustapha si denc nañ fa ab néew bu ñu xamul kan la xamuñu lan moo ko rey xamuñu kan moo ko fa denc loolu day poser problème mm. léegi li mat a xam mooy ndax journaliste yi nga xam ni ñoo fekke woon denc ba ñooñu ñoo wëlbatikuwaat bindaat toogaat weer bindaat ci seen journaux ni kër sëñ Moustapha Sy denc nañ fa ku ñu xamul wala ñeneen ñu fekkewul denc ba ñoo ko yëg bind ne kër sëñ Moustapha Sy denc nañ fa. ko mais est-ce que la nga foog ne ñu fekkewu denc ba tey kon problème bi du yegg si fii du dem bind loo xam ne. moo moo tax may laaj moo tax ma ni. ci ci ci fànn boobu ci fànn boobu. Euh, ci fànn boobu nga baal ma laataa nga yeggali. maanaam naa fekk moo ci ëpp. Mm-hmm. mbirum naa fekk moo xam nga man mi wax yow tey dama nekk ci rédaction jiite ko. Mm-hmm. Euh, te am na ñoo xamante ni damay tase ak ñoom si terrain bi kon donc xam naa leen. léegi li am ba des mooy que ni euh, bëri na am na boog du ma ni ñëpp mais am na ay journalistes yoo xamante ni jamono ji nga xamante ni denc nañu góor gi xam nañu ko bu baax a baax a baax ni que ni am na. Mhm. ab taalibe boo xamante ni am na nu mu meloon. ci kër Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum mel ko ci sëñ Babacar ba mel ko ci sëñ Moustapha génn na àdduna ñu denc ko loolu moom ce qui est mooy am na ko xamoon. du ma ni nag ñëpp la. voilà moo tax ma ni. ndax journaliste bi bind ne. ah am na ku ñu denc te xamuñu nuñ ko dencee. kañ nañ ko denc lu tax ñu denc ko ndax fekke woon na denc ba waaw wala déet wala mu bokk ci journaliste yi nga xam ni dañuy def kalan ndax nag damay taxaw tuuti ci journaliste yi ndax réew mi moom réewum kalan la kalan <laughs> boobu moo am fépp ba ñëw ci biir métier mii di journalisme na fi ba xuus ba am fi doole lool kalan bi mooy lan ba àdduna yàqoo mooy bi ñu naan journaliste au pouvoir ak journaliste opposant ba àdduna yàqoo mooy bi ñu naan journaliste su diw ak journaliste su diw ba àdduna yàqoo mooy bi ñu naan journaliste bii moo far ak diw da koy bindal lu baax da koy waxal lu baax ak bi ñu naan journaliste bii moo far ak askan wi booba la métier mi yàqu ca la àdduna yàqu ca la bind lu dul dëgg am ca la wax lu dul dëgg am ca la revue de presse lu dul dëgg am ca la wane image yu wérul am ca la wax loo xamante ni si leer na la ni yow mi koy wax dara sosewu ci dara laalewu ci loola nag la ko indi mooy sëñ bi am na journaliste yoo xam ne dañoo far ak sëñ bi mën nañ la ci boole muy benn ci yow far nga ak sëñ bi bokk ci daayira bi muy yow seex am ci journaliste yoo xam ni keneen kuy jàkkaarloog sëñ bi muy adversaire u sëñ bi moom la faral bokk ci daayiraam léegi ñaar ñooñu nag bu ñu korosee ku ci nekk da ngay jàpp ni da ngaa war a bind ci sa mbër lu baax ku ci nekk da ngay jàpp ni da ngaa war a wax ci sa mbër lu neex ku ci nekk da ngay jàpp ne da ngaa war a wane sa image u mbër mu doon image bi gën a taaru. bu ko defee askan bi askan bi dootul xam kan lay gëm. kan lay gëm voilà léegi nag loola problème bi muy posé rek mooy matadik ñenn ci journaliste yi mbaa Sylvie xam nga ni boo doon tànn mu boo leen sëfee ci sept place ci Sénégal duñ ko fees ñu ci bari ñi ngi yor micro di wër di wax ni ay journaliste lañ ñu ci bari jël nañ leen ci télé yi ñu ci bari jël nañ leen ci rajo yi te demuñu ci école yi ñu war a jàngee journalisme jàng ko ñu yar leen ci ñu éduquer leen ba ñu ñëw mën ko pratiquer mbaa xam nga ni am na journaliste yu jàng ci l'école yi ba génn te yaruñu leen ci rajo yi yaruñu leen ci télé yi ba mën ko pratiquer bu njëkkoon da nga doon def journalisme mu ñëw ñu defal la stage trois mois 4 mois 5 mois 6 mois wan la ni ñuy waxee ci micro wala boo éviter nit ban cër nga koy jox wan la wan la wan la ba lépp nekkaat ci yow nga xam ni amaat nga beneen tàggat. Mhm. ginnaaw boo bàyyikoo ci lekkool bi ñëw ci groupe média bi nga xamante ne si moom moo lay tàggataat. Mhm. ñu tuddee ko estage léegi loolu amatul léegi ku génn rek da ngay daal di bëgg a dem uti contrat yor sa micro dem ci terrain bi mbaa nga war a ñëw bokk ci plateau bi. bi loolu amee ak tey la métier mi am problème te problème yii am ci métier mi suba gu ñu xëyee day gën a avancé suba gu ñu xëyee day gën a fés. Sylvie mbaa xam nga ni am na journaliste yoo xam ni nit da leen di woo ne yàqal leen ma diw ma fay leen. ñu daal di yàq am na ñu yàq diw mooma. ñu ñu ko ma fay leen. est-ce que ñiy bind ci sëriñ bi corruption. est-ce que ñiy bind ci sëriñ bi bind ci euh, góor gi nga xamante ne si moo faatu. est-ce que bokkul ci ñi nga xam ne dañ leen woon ne leen yàqal leen ma suufu sëriñ bi yàqal leen ma deru sëriñ bi ma fay leen est-ce que ñi bind ci sëriñ bi bokkul ci journaliste yi nga xam ne dañ naan naa yàq suufu sëriñ bi yàq deru sëriñ bi pour ma am ku ma fay cest à yooyu yëpp tey boo ko dajalee day doon loo xamante ne si ëpp na débat une de temps xaju fi xajul ci ci ci ci mm-hmm. bi xajul ci mm-hmm. waxtaan bi tey mm-hmm. li ma ci bëgg a tënk daal mu leer mooy journalisme pire amul ndax journaliste si dëgg dafa am lu ñu lay jàngal mais day am loo xam ne day nekk ci yow xam-xam bi nañ lay jàngal communication nañ lay jàngal éthique nañ lay jàngal déontologique nañ lay jàngal waaye nag ngor ak fulla mhm. ak fayda ak jom ak mat ci yow la war a nekk nit ñi fi ñuy dajee rawantewuñu fi ña ngay rawantee fa ñuy bàyyi ko. Mhm. foofu laay teg sama baaraam. ba ñu dem ci deuxième point bu ma ànd ak yow Modou Fall. <laughs> ci ànd ak mën nga dëkk. <laughs> musuma ànd ak yow voilà euh, jàngat bi am na solo bu baax a baax. <laughs> Euh, transition rek ñu ñëw. Euh, ci li nga xam ne mooy thème mu tey bi jafe-jafe yi sonn nañ lool période bi ah Cheikh. waaw yi moom daanaka toujours ci coono lañ dëkk mën naa ni ci coono lañ dëkk moom moom pratiquement. si mhm. coono lañu dëkk mhm. mais coono googu yëpp li ñu ko yóbbee mooy tappale goo xamante ni suñu njiit yi amee nañ ko mhm. man damay wax comme euh, suñu ministre bi la ministre de l' éducation nationale Mamadou Talla euh, dans les norme war na xoolaat li nga xamante ni moom mooy doxalinam parce que milieu bi nga xamante ni mooy milieu scolaire bi ay jafe-jafe rek rek rek moom moo ci ne xam nga tey euh, dafa am benn citation boo xamante ni sëñ Moussa Wa sax laa mos dégg mu wax ko mu ni euh, école léegi euh, yaratuñu mais ci jàngale rek lañu yem maanaam tey dangay ñëw ñu ne la un plus un égale deux fa la ñu yem. Hmm. Hmm. alors que auparavant da nga daan dem école di fa jëlee xam-xam di fa yaraale li nga xamante ni mooy sa njaboot. bu njëkk ñun bi ñu doon gën a nekk ndaw doon def élémentaire bu ñu mosaan a xëy romb ki nga xamante ni moo ñu daan jàngal soo ko gisee ah doo mu gis la. Hmm. mais léegi soo dajee ki nga xamante ni daf lay jàngal yow sax soo moytuwul sa ñaari loxo yëpp di nga ko yëkkati pour wan ko ni que ni gis nga ko mm-hmm. pour wan ko ni que ni daje ngeen mais léegi c'est le c'est le contraire mm-hmm. jamono ji nag ñi nga xamante ni ñooy nekk euh, di jàngale ñi nekk ci ay jafe-jafe yoo xamante ni yu bëree bëree bëri la boo ñëwee ci li nga xamante ni moom mooy élémentaire fekk fa jafe-jafe yu ni mel nga dem ci euh, moyenne secondaire ba ci enseignement supérieur Euh, fekk fa ay jafe-jafe te jafe-jafe yooyu yëpp dara waralu ko lu dul ay njiit yoo xamante ni tappale rek moom mooy li nga xamante ni mooy seen mooy seen yitte euh, mhm. tey am na benn sujet anglais boo xamante ni joxe nañ ko récemment muy may doole ñi nga xamante ni ñooy góor jigéen ñi ñu gis li nga xamante ni mooy moo ci xew gis nañu ki nga xamante ni moo joxe woon épreuve bu ni mel ginnaaw gi am na ay sanctions yu ñu jël teg ko ci kawam mais lu ñuy wax ñun mooy que ni pour wan la ni tappale gi da cee bëri mooy yéex a indi sanction yi nga xamante ni indi nañ ko teg hmm. parce que tey euh, jamono yi nga xamante ni mbiru Ousmane Sonko Adji Sarr am na benn professeur boo xamante ni joxe woon na ci benn épreuve euh, doon ci expliquer rek te loolu sax la mu doon wax hmm. ak lii bokkul mais kooku laa tey journée bi di jeex sax gis nañu ni am na ay daan yu ñu yëkkati teg ko ci kawam hmm. mais kii teg nañ ci ay fan di dinañu xool ñan ak ñan la ak lan la alors que bëri na ñoo xamante ni waroon nañ leen a sanctionné ci mbir mu ni mel. Mhm. kenn rek lañu dégg kuñ ci sanctionné mooy ki nga xamante ni wax nañ moo joxewul épreuve bu ni mel alors que examen blanc la sujet examen blanc du tey euh, benn professeur anglais moo koy proposé rek indi ñu daal di koy joxe. parce que comme loo xamante ni dafa laal yëpp dans les normes bi épreuve bi génnee am na ci yeneen collègues yu muy jaar ñu contrôler xool. normalement IA bu moo koy valider. moo ko war a valider laataa mu yegg ci xale yi. mais pour wax la rek ni que ni tappale gi moom toujours moom moo nekk fii moo tax euh, li nga xamante ni mooy jafe-jafe yi di wëy di nekk loo xamante ni euh, dañuy dund ak moom Mhm. voilà kon jàpp nga ni du enseignant bu joxe épreuve bi kese lañ war a sanctionné. dans les norme du moom képp lañu ñu war a sanctionné ministre bi sax waroon nañ ko sanctionné moom si jëm boppam parce que moom si ay tuuxi duuna rek la ñuy la ñuy la ñuy dugal ci la dëkk. dans les normes euh, actuellement nii ci la dëkk te ci la ñuy yóbbu léegi nag yow boo jiitee gaal goo xamante ni nii wër na la ni bu tayee gaal gi xaw a suux bu subaa mu xaw a jóg mieux vaut daal euh, nga jël gaal googu tegee ko ne la te jël gaal gu bees. naa les normes su boobaa peut-être avancement mën na ci mën na ci am su boobaa. Mm, doy na waar daal en tout cas euh, kon moom moom nga jàpp ni daal moom moo fi war a. Euh, faay yu ëpp yu ëpp yu ëpp. ci suñu ñaari ministres yi te pourtant moom mooy sanctionné nit. ci suñu ñoom ñoom ñuy sanctionné nag ñoom la ñu waroon a njëkk a ñoom seen jëm bopp. doy na waar laataa ñuy yegg ci ñeneen ñi. Euh, doy na waar Cheikh coronavirus bi tey perturbé benn année scolaire li koy firndeel année bi 2021 novembre xale yi ubbi. Euh, yéen est-ce que xale yi duñu traîner ay lacunes parce que ñëpp xam nañ ne année année deux mille vingt bi jotuñu ko eggali. voilà waa année scolaire deux mille vingt bi comme ni nga ko waxee jotuñu ko yeggali mais boo xoolee euh, daaw bi nga xamante ni mbas mi dugg si na. pour wax la rek euh, cuune gi nga xamante ni nekk na ak suñu gouvernement bi te ñu wax ko léegi moom la ñuy baamu ba tey rek xam nga daaw bi nga xamante ni mbas mi dugg na gouvernement bi dañuy jël dogal daal di ni euh, dañuy dakkal lépp loo xamante ni njàng la ak njàngale ab diir. Mhm. laata ñuy delluwaat ci li nga xamante ni mooy école yi. bañ ko dakkalee fa lañ jaaree nag faf ñi nga xamante ni nii nekkuñu woon classe examen fa lañ jaaree tëj. ñi nga xamante ni ñoo nekkoon classe examen bi demee ba nga xamante ni daanaka weer moo desoon examen yi daal di ñëw ñu daal di wàññi matières yi nga xamante ni doon nañ ko def daal di leen bàyyi ñu daal di dem defi ji examen moment boobu ñoom dem nañ defi ji seen examen mais tey ñi nga xamante ni tey jeexaluñu woon seen ay programme daal di tëjoon ñooñu tey ñooy def examen ren kon kooku kii yoom jeexul woon léegi nag gouvernement bi daal di jël dogal daal di ni ren su ko defee trois mois yu njëkk yi nga xamante ni moom la ñuy njëkk a jàng trois mois yooyu dañ koy jël daal di dabaatal def révision yeggali programme bi nga xamante ne nekkoon nañ ci at bi ñu génn su ko defee nag li des ñu soog a wuy ci beneen année bi mais ñëpp ñoo ko gisandoo euh, gis nañu ñi nga xamante ni ñooy gouvernement bi ñu génnaat ki nga xamante ni mooy le ministre de l'éducation ak ñi nga xamante ni ñoom lay liggéeyal liggéeyandoowal ñu daal di ni euh, li nga xamante ni mooy examen yi date bi ñu ko jàppoon dootuñu ko mën a def ci date boobu parce que buñ ko ci naree def dina am ay failles yoo xamante ni euh, dafay daal di am ñoom mm. pour éviter loolu nag daal di tax ñu ni nañ ko dàq mais pour wax la rek loolu lépp lu ñu mënoon a regle depuis at bi nga xamante ni génnoon nañ ko loolu noonu lépp tey ñoom waruñu woon a xaar ba nga xamante ni nii tey toll nañ fii sax ñoom ñuy soogaa di wax li loolu nag euh, kenn du ko kenn du wax ni gënul euh, dàq gi ñu ko dàqaat kenn du ni gënul parce que euh, dina permettre donte ni am na ñoo xamante ni yeggal nañ seen ay programme mais dina am ñoo xamante ni seen ay programme des na te bëri na sax ci professeurs yi ñoo xamante ni ñoo sàkku ngir ñu daal di dàq li nga xamante ni moom mooy euh, datu examen yi mais ñoom dans les normes bu doon ñoom tey euh, toog nañu di gëstu di di sonn di di dee ci li nga xamante ni dénk nañ leen ko amaana peut-être sax ba ñuy jàpp date bu njëkk rek amaana mënoon nañ jàpp date bi nga xamante ni jàpp nañ ko tey mu nekkoon le vingt neuf ak le neuf ak euh, le sept yi nga xamante ni proposé nañ leen mhm. mais tappale gi moom comme ni ma koy faral di waxee rek moo xaw a bëri ci li nga xamante ni mooy édi suñu éducation bi mhm. c'est ça le problème mais mhm. euh, cher tey dàq nañ examen yi euh, sori na soriwul mais tey nga foog ne xale yi déjà date bi ñu ko def juillet après tabaski ak août bu ñu tollee ci nawet ak période bi nga xam ne tout ce temps euh, est-ce que loolu mënul impacter psychologiquement ci xale yéen nga xam ne ay enseignants ngeen xam ngeen pédagogie xam ngeen xale yi comment ça fonctionne est-ce que du dem ba sonn du du ko examen bu ñëwee lañ naroon def duñ ko mën a def. bon loolu moom yaakaar naa mën na bañ a indi jafe-jafe ci nongo yi parce que nongo bi nga xamante ni danga nga jóg daal di ni jàng rek moo la yitteel bëgg ngaa jàng bëgg nga am ndam ci li nga xamante ne nekk nga ci mhm. yow tey su ñu yóbbu suñ la waxoon ni que ni bu école tëjee bu tijjiwaat la ñuy def examen sax yow fii ak loolu jotul doo sonn doo tàyyi yow di nga ci wéy di nekk di gën a rayante mm-hmm. bés bu yàlla moom daal lenn daal mooy sa coono mooy toujours daal da ngay gën di fayet rek di xaar li nga xamante ni mooy examen yi ñëw nga soogaa di noppalu ndax fii ak li nga xamante ni mooy examen yi jàllul doo mën a dallu kon euh, dàq gi ñu ko dàq moom moo tax ñu bari ci ndongo yi léeg-léeg boo leen laajee euh, ñenn ñi moom dinañ la ni noo bu ñu sañoon ñu def ko léegi-léegi mais waxu élève la rek bu ñu sañoon ñu def ko mais ñu ci bëri ci ñoom tamit di nga leen dégg ñu ni la dàq gi ko dàq baax na te dàq gi ñu ko dàq tamit dina permettre ñi nga xamante ni euh, yëggaloon nañ seen ay programme ñuy continuer di def ay di def ay révision mhm. d'accord Modou Fall waaw Sylvie mbirum mbirum lekkool bi man li ma ci doon wax saa su ne rek mbirum lekkool bi li ma ci doon wax saa su ne rek laa ciy waxati damay daal di utiliser baat boobu wolof ni ku suul sa bopp cib xatax mbaam yey ko ku suul sa bopp cib xatax ça mbaam yey ko ku wàccub àndam ànd bu mu dem fekk ñeneen di ca ànd. waaw expliquer olof yi dañ naan ab ànd waaye du ànd ab ànd la ku wàccub àndam wàcc waxuma wàcc ku wàccub àndam ànd bu mu dem fekk ñeneen ña ko doon ànd continuer di ko ànd. ku ruur sa bopp cib xatax mbaam yëy ko. waaw expliquer boo fi ne ñukk joolaa bi <laughs> na fi ñukk wolof bi. Hmm. na fi ñukk alpulaar bi na fi ñukk séeréer bi. na fi ñukk saraxule bi na fi ñukk mbàndinke bi na fi ñukk bambare bi jël val. te yooyu oto ngay jël rek dem ci ñoom wala saret wala vélo nga jël val dem ba bitim réew jëggaani baatub nasaraan ñëw na forcément nga dugal ko ci bopp xale yi ba ñu mën a làkk ba noppi ba xam lan mooy tubaab ba noppi nga doog leen a jàngal boobaa yaa ngi tardeel sa bopp yaa ngi tardeel sam réew yaa ngi tardeel say xale yaa ngi sonal say jàngalekat yaa ngi leen di tardeel mm-hmm. moo tax ma ni ku sa bopp ci xatax mbaam yéy ko ku wàccub <laughs> àndam ànd boo dem fekk fa borom. Cheikh Ba dégg nga yooyu olof. <laughs> ah olof Moodu moom <laughs> jéem a gëstu rek tey noté. cest li ma bëgg a wax mooy jàngalekat yi Sylvie defuñu dara defuñu dara xale yi jàngit defuñu dara. ku def. état bu Sénégal bi bind ay programme bëgguñu cee tënk forcément na far force ngeen jàng tubaab moom moo def waxoon naa ko fi neewoon naa bu fekkoonte ne éducation dañ cee dugal. làng yi nga xam ne mooy suñu làng nationale du metti xam lu tax du metti xale bi nga xam ne wolof rek la dégg pour nga jàngal ko xam-xam ci wolof yooyu day facile saa bu demee ba troisième mu boot nasaraan bi boot angale bi loo boot yaa ko ëpp doole loo boot yaa ko mën xale bi dégg saraxule noonu xale bi dégg séeréer noonu xale bi dégg joolaa noonu léegi nag bu loolu lépp amul du ngeen jóg yéen jàngalekat yi ak ñiy jàng ci ibbi tey jàng tey mu doon ibbi tey jàng déwén du ngeen ci mas a jóg du ngeen jógit ci programme bi nii lay demee ngeen dox tuuti ñu changé programme bi yóbbu leen ko ba ginnaaw tabaski yóbbu leen ko ñaari weer ci kanam du ngeen ci mas a jóg waaye du ngeen jóg mukk ci yenn jàngalekat yi wala yenn directeurs yi bind programme mu góor jigéen joxe ko mu doon leçon yoo xam ne jàngal nañ ko xale yi ay at du lu bees de li ngeen yi wax tëngéej nii ki ko ki bind programme bi joxe ko te ñu sanctionné ko du lu bees lu mu njëkk bind jàngal nañ ko xale yi jàngalti leen ko dellu leen ko jàngalati ba ay xale génne ca école yooyu doon ay góor jigéen dem jàpp ne loolu ñu jàng moo doon dëgg dañoo gëstu bu baax ca la mu bind la mu ca jiital mooy yaay na ngeen ma baal papa na ngeen ma baal bëggeewu ma ko woon nii waaye nii la ko yàlla dogalee xam naa ne bu ngeen yégee sama góor jigéen bu ngeen yeewoo bis yëg ni doon naa góor jigéen du leen neex waaye nag nit ku ci nekk am nga droit ci misaal ci tënk rek. Mhm. nit ku ci nekk am nga droit xool li nga jàpp ni mooy sa choix mën nga cee dund nga di ci dund waaye yéen yareewu leen ma woon nii. waaye nag du àndandoo bu bon it mu ma ci dugal nga xam ne bu ñu ko doon topp tey daa doon loo xam ne njàngale mu yées ci àdduna. Mhm. far force ma jàngal la nga doon góor jigéen ba pare ma daganal ko moom programme boobu la joxe woon ci lekkool yi dama lay jàngal nga doon góor jigéen ba pare ma daganal ko. ma défendre ko ma protéger ko nga doon ku neex làmmiñ koo xam ne lii ñu la jàngal ëllëg foo taxaw mën nga protéger sa bopp ci góor jigéen góor jigéen mooy lan góor gu ne yë pour ñuy déglu ñu baal ma ci kàddu gi góor gu ne yënga juutu moroomu góoram di sëy ak moom kan moo ko mën a daganal nit bind ko ci suñu lekkool yi ci senegal jox ko ay nit ay ay jàngalekat ñu koy jàngal ay ndaw ndaw yi di xëyee ci seen biiri kër di ñëw ci biir lekkool bi di ko jàng di ñibbi loola kalaate explosé amut lenn luñ ciy dégg lu dul ñoo ngi xool ba xam kañ nañ koy sanctionné lan mooy baatu sanctionné mooy alamaan alamaan nag ci ñaari fànn mhm. mën nañ la alamaan ci sa payoor wala ñu alamaan la ci sa temps buñ la alamaanee ci sa temps mooy dañ laa dàq yow amatoo benn temps pour jiite l'école bi bu mhm. buñ la alamaanee ci sa payoor mooy ah dañ naan la kat alamaan lañ la enveloppe deux cent mille wala ah ñaari weer yi doo ko fayeeku léegi moom dañ dañ koo alamaa ci taam wala léegi ñaata xale la yàq ñu doon ay góor jigéen nga xam ne suba dañuy sëgg seen bopp féete suuf seeni loxo sëppu seen i tànk kawe seen moroomu góor tiim leen di sëy ak ñoom nga jàngal ko ay xale ci ay ati at wala ay weeri weeri weer xëy suba ñu ne dañ laa alamaan képp bàyyi la nga dem bu subaa nga dem ci école privée yi di jàngale problème bi seex ne état bi la dëggantaan njaay état bi la du kenn ku état bi état bu Sénégal moo moo cuune ci jël nasaraan bëgg koo forcer xale yi jàngal leen ko forcément état bu Sénégal moo daanu ci taxaw temm ci ne saa su ne saa buñ jàppeen dina indi yeneen programme yu yees yoo xam ne xale yi dañ ci mën a tënku pour am xam-xam mu indi loo xam ne daf leen di delloo ginnaaw loo xam ne bu suñ maam yi dekki waatoon sax Cheikh Anta Diop bu ñëwaatoon tey gis l'école yi li ñu fi jàngale day simmiku sol tëneem xeex durus day xeex day xeex day simiku solteneem xeex ndax day jàpp ne Sénégal passé na fii waaye nag état bi lu mu def def tooxi doona lu mu def def toj-toj jàngalekat ya dañ leen cee jàppale dañ leen cee dimbali doo dégg benn jàngkat bu génn ci mbedd mi ci programme bi ñuy jàngale xale yi bi heure yi jàngal xale yi doyut doo ko dégg doo dégg benn jàngalekat bu génn ci mbedd mi mars ci ne xale yi li ñuy tardé dafa bari doo ko dégg doo dégg benn jàngalekat bu génn ci mbedd mi mars ci ne xale yi li ñuy grève dafa bëri doo ko dégg xam nga jàngalekat yi lu ñuy grève fayuñu ñu yokkaluñ ñu amuñu losement fi ñu affecté dafa sori bu état bi defee yéen jàngalekat yi yokk leen seen njàmbaar tuuti te jéem a gunge gunge xale yi jéem a gën a góorgóorlu. incha allah <laughs> voilà beneen bi sopp tamit li ñu ci bëggoon a dolli mooy que ni ñi nga xamante ni ñoom euh, ñoo nekkee ci suñu gouvernement bi léeg-léeg ñu dégg leen. ñuy wax ci li nga xamante ni mooy njàngum arab euh, léeg-léeg ngeen dégg ñu ni lee daara daara moderne daara moderne yi nag soo leen koy dégg day mel ni tey euh, actuellement nii nii nii daara moderne yi jox nañ ko doole bu baax a baax a baax alors que li nga xamante ni mooy jàngum arab dañ ko xaw a négliger bu baax a baax a baax fii ci biir Sénégal tey yaakaar naa waxoon nañ ko waxati ko ni que nit léegi dinañu indi des daara moderne ba recrutement bu mujj bi nga xamante ni lancé woon nañ ko sax gis nañu ñu am ñoo xamante ni dañ leen a choisir pour sóoraale li nga xamante ni mooy daara yi mais léeg-léeg ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllum euh, enseignement comme niñ ko waxee muy le ministre de le ministre de l' éducation nationale ak ñi muy liggéeyandoowal euh, bu ñu bëggee benn mbir ñëpp nekk ci au courant média yaa ngi fii daa nañ leen gis ñuy dem fësal ko ñëpp xam mais c'est rare ñu dégg leen ñiy fësal li nga xamante ni mooy jàngum arab ak daara fii ci biir Sénégal te loolu nag nekk mbir moo xamante ne ni euh, ñun euh, duñ ko rafetlu bu ñu sañoon daal doonte ni am na luñ ci def loo xamante ne yokk nañ ko ci te amu ci woon mais bu ñu sañoon euh, ñu gën a indiwaat li nga xamante ni mooy jàngum arab gën ko dooleel. Mm-hmm. tey daara yi léeg-léeg nga dem ay daara yoo xamante ne tey da ngay dugg foofu benn xale mën na mën na commencé ci benn ci benn point xaw fa yàgg lool. fekk liy waral yàggaay gi nag mooy que ni daara yooyu léeg-léeg doole maanaam euh, manque de moyen bi nga xamante ni dafay faral di nekk tey ki nga xamante ni moo yore daaram bu doon tey euh, état bi jël na ko en charge li nga xam xale yi nga xamante ni nekk nañ fa ñuy jox ñu liñ leen war a dundal ñi di leen si jàppale di jàppale ñi nga xamante ni ñoo leen di jàngal je pense que su boobaa euh, li nga xamante ne ñu ngi ko doon wax naan dañuy tere xale yi di génn si mbedd yi di yelwaan ak yu demee noonu dina wàññeeku à cent pour cent mais nit munoo yëkkati dara te doo fa teg dara. loolu mm-hmm. moom mënul mënul nekk. Euh, Cheikh yéen yéen nekk ci salle de classe yi yéen a mun a xam euh, dégg nga ko sànq Modou Fall nee na dañoo jéggi xam am nu mu ko waxee ci wolof. Euh, tey est-ce que bu ñu dugaloon suñu langue locale yi jàngal ko xale yi euh, comme langue yi mi wax tubaab yi yeneen ñi ñu boot ko euh, du gën a baax. déjà nit ku ñuul moom complexe da kaa yàgg sonal déjà yow sax di nga seetlu ni que ni boo demee ci école yi en général lan lañ lay wax dañ lay liñ lay njëkk a tere mooy langum olof tegee ko nële boo nekkee ci. Euh, dañuy def symbole amul kenn kenn amul droit nga làkk olof ngay wax français bu dee arab ngay jàng euh, tey boo demee ci franco arabe yi nga xamante ni ñi ngi fa en général dañuy imposer ñi nga xamante ni ñooy xale yi ñuy wax arab euh, bu dee français nga am ñu imposer la ngay jéem a làkk français loolu moom mooy li nga xamante ni moom la ñu indi mais beneen bi sopp tamit mooy boo waxoon lànkum olof ngay jël jiital ko ci njàng mi déjà donte ni nag am na ñoo xamante ni nii pour ñu comprendre ci amaana mën na yomb mais léeg-léeg soo ko defee dèjà rek di nga indi ay jafe-jafe yu bëri parce que dina am ñoo xamante ni du ñu dégg olof. nga yaakaar ni coono bi ngeen daj ci nasaraan bi bu dugal ko ci bopp xale bi bu ngeen ko dajoon ci olof bi. mais mais mais ñaar yooyu du ñu bokk quoi ñaar yooyu yamuñu ñaar yooyu yamuñu léegi tey euh, da ngay jàngal nit ki tubaab ngir mu mën a sukkandiku ci làngum tubaab pour yeneen yi mu war a jàng yëpp parce que yëpp ci làngum tubaab lay ñëw après à part langue yi yeneen yëpp ci làkku tubaab lay ñëw léegi nag bu fekkente ni da ngay langue nee nañ la pour nga maîtriser ko bu baax a il faut que nga koy manipuler le nga koy wax lu bëree bëri su yàggee di ko mën a maîtriser léegi nag bu fekkente ni tey yi ngay def yëpp nag day tënku ci tubaab bi wàcc léegi xam nga tey dooy dem di def ji examen ñu jox la pour nga bind ko ci wolof moo tax man de li may proposer moom mooy ñu maintenir langue français bi ah comme ñàkk pexe pexe la. ñu tënk mais sinon boo boo boo dugalee projet la mais projet la mais soo ko. projet boobu projet la mais soo ko dugalee projet la mais soo ko dugalee tey. Mhm. tey soo dugalee olof pël bi ni dugal ma séeréer bi ni dugal ma njaago bi ni dugal ma. keneen ku ne ku ne dina bëgg euh, nga daal di koy indi si biir. su boobaa nag di nga gën a di nga gën a yokk li nga xamante ni mooy mooy mooy mbir yi. mais daal man li may wax daal li may wax li ëpp solo mooy que ni daal. le ministre de l' éducation nationale euh, moom ak ñi nga xamante ne ñoom lay liggéeyandoowal ñuy bàyyi xel bu baax a baax li nga xamante ni mooy enseignement ñu xam ni njàng mi du loo xamante ne nii lu ñuy foowee la. Mm-hmm. parce que euh, ndaw mooy yori réew ëllëg. te ndaw mi war a yor réew ëllëg dañ ko war a waajal léeg nga gis benn xale boo xamante ni xale bi tey Euh, da nga koy jox boo ko boo ko joxoon nga ni ko mu mu maanaam tey nga ni ko euh, usine bi benn usine bu gën a mag biir Sénégal comme Sococim wala leneen ak leneen ñun dañ koy faral di gis ci franco-arabe yi nga xamante ni nekk nekk nañ fa wala boog ci mouvement bi nga xamante ni nekk nañ fa nga gis benn xale nga jox ko nga ni ko defaral ma usine ko Sococim nga jox ko ay ay ay ay ay këyit ak yeneen ak yeneen mu defaral la usine Sococim bi réaliser la ko xam nga kooku tey. am na loo xamante ne war nga ko ci war a mën a former war nga ko ci war a mën a dimbali mais yooyu aussi war nañ ci war a mën a bàyyi xel mais surtout tamit beneen yoon mooy li nga xam ne mooy calendrier moom mbirum calendrier man je pense que warul nekk loo xamante ni day poser problème donte ni nag léeg-léeg jafe-jafe mën na am nga indi changement loolu moom kenn kenn dàq ko mais boo waajee waaj bu waaj waajin gu jekk rek yu mel noonu je pense que mën na mën na bañ a am Mm-hmm. ndax symbole mi ngi am ba léegi ci classe yi. bon euh, ci élémentaire yi moom am na am na ñu koy def am na ñu ko deful mais ñu bëre au fur et à mesure ñuy avancer mi ngi gën di raar jamono ji ban méthode la mi ngi mi ngi gën di raar jamono ji moom boo demee ci école yi la plupart bon parfois surtout dama seetlu école yi nga xamante ni mooy Saint yi rek Saint Martin Saint et cetera yeneen kii pour <laughs> yi mais privé catholique yi ñoom en général ñoom ngay faral di gis moom même xale buy def CI sax toujours day wax wax français rek mais à part moom yeneen école yi moom en général euh, léeg-léeg bu njëkk da nga daan gis ñu lay imposer pour ngay wax français mais léegi man remarque bu ma def mooy imposer tuñ ko kenn da neex nga wax français mu neex la nga wax olof. Mhm. dañ ko déggul sax ñi koy jàngale dañ ko déggul. xam nga ñi koy jàngale dañoo boole ñaari problème dégguñu français dégguñu wolof léegi yow boo jàngal xale bi te déggoo français déggoo wolof loo ko jàngal <laughs> yoo xam ne moo tax ma ni comme Cheikh li nga wax sànq Euh, joolaa bi boo defoon olof bi joolaa bi na man tukulóor bi na xolal ka Ziguinchor joolaa fa gën a fes joolaa nga fay jàngale <laughs> <laughs> solution lay joxe. Eh". non non pour wax la rek pour wax la programme ni mu doxee du du du solution man de daa doon programme boo xam ne balaa yàgg nga yëg ni mi ngi ci école yi mais njàng mi aussi fépp la parce que même enseignement supérieur bi aussi y a que des njàngum Sénégal am problème néew ma nga xamante ni tey ñooy étudiants yi avec suñu ministre bi. ñoo ñoo yées Cheikh Oumar Anne déjà gis nga université ak problème yi fa am euh, cas yi nga xamante ne nii ñu ngi ko fay ñu ngi ko fay ñu ngi ko fay gis. actuellement ma ne la ñoo ñoo yées déggoo ma ne la njàng mi. muy yoo xamante nii ñu di veiller la xam nga tey yow tey bu ñu demee bay jël ay ngànnaay waaw ndongo yi di daje ci bërëb yi nga xamante ni fa la ñuy ne si amical di fa yore ay ngànnaay naka la ñu war a mën a def ba dugg ci biir yóbbaale ay ngànnaay seex loolu laa wax nee naa njàng mee am problème njàngum Sénégal mooy soox roq euh, ci luy bax la benn roq seddut du du du privé bi du public bi université ñoom ñëpp feebar xale yi jànguñu dañuy jotaale ñi leen di jàngal dégguñu nasaraan dégguñu wolof léegi ki lay jàngal bu déggul français déggul wolof lu mu lay jàngal xam-xam rek la lay jéem a jàngal jàngalkat yi boroomi xam-xam lañ ñëpp samay xarit lañ ki lay jàngal déggul français déggul wolof xam-xam rek la lay jàngal dégg naa moo wax université université moom bu fa junni nit nekkee junni baa bu fa junni nit nekkee téeméer baa fa am fu lay jàng jóge man université ba ma fa demee def benn gëstu bu yaatu yëg ni ndekete nit sax dafay takk jabaram nekk faak soxnaam ba am fa mhm. njaboot man ci laa noppalu ci université ndekete am réew la mu nit ña dëkk <laughs> ma ne leen nag leneen dese mooy créer président wut premier ministre wut assemblée nationale di doxal ndax am réew la <laughs> euh, réew nag bu yeggee foofu ci ay yu kenn xamut <laughs> dafa mat a toog ci taabul waxtaane ko góom bi ñu raxas ko ba mu set mooy li ma wax léegi rek cela veut dire que ni ñi nga xamante ni ñooy suñu njiit yi waaw ñoom dafa mel ni ay figurant lañ. ci maanaam dañuy taxaw nii rek bàyyi noonu. ci laa jëm lii leen war dëgg dëgg dëgg day mel ni xamuñu ko mi ngi mel ni tey nga fekk euh, koo xamante ni tey euh, yitteem. mooy mm. fekk avion buy daw maanaam yëkkati avion mooy rôlam nga jox ko jën ni ko jaayal. dama ni ci laa jëm moo tax ma ni la réew mi dafa mat a teg ci taabal ji waxtaanee ko raxas góom bi ba mu set def ci alcool wala ñu def ci békki la maam yi doon fajee gis nga euh, sànq dégg naa la nga tudd daara ji ak école arabe bi. macha allah dégg naa nga wax ci yolwaan mi ñu leen di tere gis nga euh, ñun donga yi magum lëndëm lañu ku leen dajutit ñu daj seen bopp ku jaay sa juróom-ñeent fukki maam ak juróom-ñeent ku la indi maamam xam nga lu muy jar ku jaay sa juróom-ñeent fukki maam ak juróom ku la indil maamam xam nga lu muy jar fu Sëñ Tuubaa jaar jàll moom alaaj Malik Si jaar fa jàll ma dabaax Malik jaar fa jàll Sëñ Fàllu jaar fa jàll mag ñooñ jaar fa jàll amul kenn ku mën a ñëw ne dañ lay indil beneen beneen pratication bu bees indil la beneen modèle nga di ca jaar déedéet ñooñu dañ daan yolwaani ñëw lekk tëdd jàng mm-hmm. jàng njël yolwaani bëccëg heure bi nga yolwaani nga calculer ko ñëw lekk tëdd jàng marax jàng fajar ci loolu nañ def ba tey àdduna bépp ñoom naw leen ku ne xam na ni jërut sax di wërati di leen présenté muy mag ñooñu ma tudd donga yii fi nekkit foofu la ñuy jaar boo naan ay duñ bu leen yolwaane nangam sangam yaa yaa xayti bul yolwaane te ki nga ne doo yolwaane yor na téeméeri donga mosoo koo indil genn wàll libaru ceeb lu mu leen di jox eh, eh, eh, élève bi nekk université nga ne ko yow bul yolwaane bul def dara waaye nag weer wu dee dinaa la jox bourse bourse bi tàmbalee ci douze mille dix-sept mille cinq cent vingt-deux mille ba soixante mille léegi élève booba saa bu meree na lan dañ maa jox yàpp bu baaxul génn taal biis saa bu meree génn taal banque saa bu meree génn baare tali bi saa bu meree saa bu meree nga jël élève boobu teg ko ca kaw di ko nogg-noggal di ko raay donga bi nga xamante ni si mooy lépp réew mi nga ne ko bul yolwaaneeti nañ la toroxal nañ xeex daara ji dañuy nax seen bopp mënul nekk c'est impossible te boo xoolee école yëpp dañoo produire ay sàcc donga daara yi rek ñoo fi créer ay ay ay entreprise yoo xamante ne si nit ñi mën nañ ci liggéey mu tekki dara tuba jànkat yu baree baree bari réew mi milliards yi ñu fi dégg ñu koy sàcc ñëpp jànkat tubaab yee ko sàcc dooma tuddal milliards ñi sàcc réew mi ñëpp ñu diw daa sàcc milliards diw daa sàcc milliards ñoom ñëpp ay produit wu yi lañu université nañ génne ñëw ñu ne intellectuel ñu sol ab costume xëcc ko baat bi ba mu xoj leen milliard bu ñu jekk ko sàcc ko dañuy këpp kees boo dégg mukk donga daara bu sàcc donga daara ci 20 000 lay tàmbalee 20 000 francs jóge ci daara ñu jox la 20 nga ñëw ci marché bi jënd tàngal socci pitikola gura di ko jaay ba mu doon 80 000 nga jënd ay tubay ay kilote di ko jaay ba mu doon 200 000 nga ut di ko jaay ba mu doon magasin nga samp ca magasin ba di ko jaay ba mu doon entreprise nga jël tubaab yi yëpp teg leen ci ñu lay liggéeyal ngay dem di yi ak a ñëw ñun loolu la ñu xam moo tax ku ñu bëgg a indil leneen naa ñu dañ leen di modifier dañ leen def ni da ngay sonal sa bopp. dóorkat <laughs> leer naa la tegal. Cheikh looy looy tëjee. <laughs> xanaa di leen jaajëfal rek euh, ci dalal gi nga xamante ni dalal ngeen ñu ko tey fii ci Rewmi FM di kontaan bu baax a baax ci sujet yi nga xamante ni aussi doon nañ ko wax euh, di remercier itam képp koo xamante ni yaa ngi ñu doon déglu rek euh, yitte bi moo nekkoon yitte bi ak yéene bi moo nekkoon wax loo xamante ni tey dina amal ñi nga xamante ni ñooy déglu njariñ mu mel ni nag wax nag moom euh, ku ci ne libre nga wax sa xalaat su ko defee nag ki nga xamante ni mooy mooy déglu bon lu mu ci mën a dégg loo xamante ne nii euh, maanaam li muy dégg lépp moo ciy xool li nga xamante ni moo ko ci amal njariñ euh, mu jàpp mu xool li nga xamante ni itam amalu ko njëriñ euh, mu jël daal di koy tegee côté. Ah. ñuy remercier bu baax tamit ngeen baal ñu rek ñu remercier ñi nga xamante ni ñoom lañu ñu bokkal suñu rédaction info 15 bi tam. commencé ah. ko ci suñu directeur Cheikh Sidou Sylla ak itam ah, képp koo xamante ni enseignant nga rek ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax di leen ñaanal itam tâche bi nga xamante ni jox nañ leen ko yàlla na yàlla oyofal li nga xamante ni mooy jëm bi tëjal yóbbu ah, man ni may tëjee Sylvie mooy lii ma sol tey dafa rafet. <laughs> waaw maa ko ñawal sama sama boutique ko ñaw boutique ba nag ku leen bëgg a jot 78 nga leen jotee 247 04 88 non yow <laughs> yow mënoo maa yàlla xoolal. tey keroog da ngaa ñuul kuk tey nga eh, jox studio bi yëpp incha allah tabaski bi studio bi évité yeeg ñëpp maa leen di solal. day day loolu leer na tey nag lii ma sol moom ñëpp moo dégg nga ma. yaa ngi ci direct bi <laughs> yéen ñëpp maa ko assuré ba mu des yenn journaliste yi nga xam ne bu ñëwee dañuy nangu heure bi foofu laay tëjee tey di nuyu sëñ Laat Mbacké fële ca Touba di nuyu joxaane ma nga fële ministère de l'intérieur di suma xaritu xol mm. waaw waaw jërëjëf <laughs> merci duy martu nag euh, Cheikh Ndoye lañ fi dalaloon rek euh, di ko <laughs> gërëm di ko sant euh, di gërëm Adama féete ci cabine technique bi di leen dig daje mbokk yi mercredi bi di ñëw même heure même fréquence beneen thème ak beneen invité Babacar Ndiaye mi ngi ñëw ci kanam tuuti jukki leen xibaar